asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant ñaan yàlla jàmm njëkk fi jàmm mujj si man Awa Thioub laa tudd di tantay Aline Badara Thiam ay kan Mor Thiam di sama nijaay ma ànd ak délégation bi nga xam ni Oudou gi ay dara di soxna tonton di léppam tonton di léppam muy tànt ci ay kan bëgg nag ki nga xam ni kii moom lañuy sagal fii muy Alaaji Mor Thiam 84 la ma Mor Thiam jël yóbbu ma Amérique. kan mooy Mor Thiam. Mor Thiam mooy jur Aline Badara Thiam mi ñuy wax ay kan taawloo Mouhamed Thiam teg ci Aline Ab Talib muy ay kan mu teg ci Aboubacar Sadiq teg ci Omar bun Khattab. Eh, loolu ñu mën wax si Akon. Akon mën naa ci wax lu bari ndax. nijaayam bi bokk ak yaayam ndey ak baay mu nàmp jox ko mu nàmp moom laa doon sëyal muy Pape Lamine damay sëy moom Aline 13 ans la ci ñu ko yor ba mu am 18 ans ci laa bokk ba léegi sax génnuma ci àdduna bëggal gu ma bëgg kooku duma fay yegg ndax yegguñu ci bis boobu may ñaan yàlla ci jëmmi Xaadimu Rasuul Mbàkke ci barkeb Sëñ Fallou ak Cheikh Ibra moom Aline Thiam mii lii mu defal baayam muy jàkk yàlla nekk ay jàkk ay jàkk daf cee fekk baayam nag ndax Lac gi ku nekk xam nga Mor Thiam keroog bi Mor Thiam ñëwee ci dëkk bi jàkkale fi njëkk ubbi jël oto bu yóbbu xale yi jël jàngalekat yuy jàngal xale yi mu leen di fay di lekk di leen jox lekk ak naan at bu jot ñu ñëw fii defal leen célébration kon ba doom ji taxaw taxawu papaam ñëw sagal papaam fii ah, tonton nag man su may wax ci moom dama leen di tardeel te noo gisee jumaa bi économie sa dafa jumaa jox ko papaam dina tabax lu raw nii rek ndax tabax bi yëpp boo ko dajalee matul un an turki ñoo fa jóge ñëw fii tabax ko muy lu ko ñor Aline ba mu jotee buntu néeg ba léegi lu mu am baayam lu mu am mbokki baayam lu mu am ay xaritam man de tante am laa man defe naa ni adduna yëpp dañ naan maa ko jur te juruma ko kon jàkka ji mhm. mais at yu mujj yi gis nañ ay kon muy muy commencé dugg ci domaine social surtout ndax loolu wanewul ne dafa andi tànk pour ñibbisi non non at bii duggul ci social de Aline ba mu juddee ba léegi social lay def xanaa dafa am loo xam ni par stable lay def mu commencé ci kaw ba ci suuf ci am social rek la Aline nekk man am naa ay xarit yoo xam ni ña nga Amérique ku ci taseeg moom sa doom di jàng nga ko tata awa sama xarit la da leen di jox ay 20000 dollars di leen fayal seen scholarship boobu jàkka ji ñëw ñëwagul kon àll dafa judd rek social ndax ci bàyyam la ko nàmp muy Mor Thiam moo ci am teral nag képp ku mu xam ku mu bokkal ay frère am ak i mag ak mi rakkam kon moom social dañ naan stade bi ñu dem day gën a xaay nag ko yëkkati mu jëm ci kaw mais ba mu juddoo ci la alim social. kon ñu ngi lay tur bi naka la. tur bi naka la. nga mhm. bokkee ko. sama doom la. Mhm. papaam laay seeyal mu nekk doom ju baax doom ju ma bëgg bëgg papaam bëgg famille pa famille doom ju nangoo nekk doom man moom awma lu may wax lu ñaanal ko li ñuy naan doomu ñay kenn ko ñaanal rëy dañ koy ñaanal gudd fan man gudd fan laa koy ñaanal ndax ku baax sekk nañ teraanga du jeex di nuyu sama délégation ñi nga xam ne ñoo ma wër ànd ak man ci bës bi jóge ba Dakar ñëw ba fii di leen nuyu ndax su ma cité tour rek damay am ku ma te bëgguma ku ma mere ñoom ñëpp ñi fi toog ñëpp samay doomu nay ñoo fi nekk ak samay xarit ak samay mbokk ñi nga xam ne ñoo bokk benn deret dañoo jóge ba tàmbaa ñëw ba fii fekk si bës bés bi nga am mbégte kontaan noo gisee jumaa ji macha allah macha allah macha allah am nañ ci kontaan rafet na macha allah def la ci lu mu mën def ba ko baayam waxee rek macha allah dafa bàyyi lépp defar lépp te macha allah ni mu waxanteeg moom yëpp def na ko. di euh, mën a wax si papa yi kon. ku baax góor bu baax góor bi gën ci bu ma neexee mën naa ne moo gën ci góor wallahi lazim ku baax nit ku yewen Mor Thiam kenn gënu ko. baax ci njabootam gën ci njabootam jullite suufi kenn xamul lu ko neex kenn mënul xam lu ko naqari mhm. loo def mu ne baax na surtout man mi soxnaa maa gën a ndaw mhm. man awma lu ma koy fay mhm. lu ne defal na ma ko teraanga bu ne defal na ma ko wallahi azim teraanga bu ne Mor Thiam man defal na ma ko ma rugi ay dara sëy nañu maa moom macha allah ay ati at ñoo ngi nekk 15 ans de mariage du 15 ans de jour 15 15 jours kon lu may def lu dul ñaanal ko gudd fan ak wér mu toog ba njabootam yëpp muurloo ko mu toog ba lekk njab sët euh, njëriñu doomam ak ay sëtam ay sëtu sëtam ndax mérité na ko nañ ko ñaanal gudd fan ak wér Mor Thiam kenn gënu ko man bu ma fi doon wax Mor Thiam du fi du ma fi jóge Mor Thiam moom mat na livre ëpp na livre sax ndax góor kilifa dëgg-dëgg Mor Thiam la dafa woyof woyof boo àndoon ak moom bu ñu newul diw mooy diw doo ko xam xale bu ndaw sax mën na ko taxawloo fii boo ñëwoon point euh, këram fi ñu nekk ay taalibe lay taxawal day wàcc otom di waxal ay taalibe ku ne da laa jox cër ok ñu lay jaajëfal jërëjëf ñaa leen di fay bu baax a baax ñaan yàlla sunu daje bii bañ a doon sunu mujjub daje waaw waaw Eh, nga gisee jumaa bi eh, tam eh, jumaa mu taxawal papaam. waaw ah, li ma ko de mooy xam nga ab jullit rawatina dib taalibe juddu fekk sa baay da nga ànd ak sëñ Abdoulaye Mbacke sëñ Bamba ah, nga ñëw ba jàpp ci sëriñ Sidi bi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Touba kooku su tabaxee jàkka ya wàcc na waxuma naa nag mu tabax jàkk ba noppi alors woo baayam ba mu ñëw ne ko sa loxo laa ko teg yow laa ko sagale kon kii doon wax léegi sama soxnaa def na 40 ans États-Unis dégg kon li mu wax dégg nga am ci Akon moom xam na ko. yow loo bokk Akon. man Akon dama dama séy tantaam eh, baayam nag di sama xarit di sama wëlëre waaw daw ma sax wuti ko moo moo ma wut rugi mii di sama xaritu bopp te borom këram mi nga xam ne mooy bàyyu àllun bàyyinu mhm. moo waral ñu jóge Touba def forte délégation ñi nga ñépp dégg nga maam ñu àndandoo ak mbokki dégg nga maam soxna Rugi mii Rugi li muy li muy ndawe ndawe ndawe sunu yimpaañ la moom mi impaañam la bu dee impaañam kon day nekk sama impaañ mais man Mor Thiam day sama xarit def ma ab sëriñam ndax dégg nga wax bi kon dañuy ñaan yàlla sunu borom eh, jàkka ji lépp lu ñu ci jaamu yàlla sunu borom nangu ko fekkente ne benn tuyaaba am na ci yàlla na ko sunu borom. séddale jullit yi dawlu ak yi desandi fii ak jullit yi war a dellu si yi war a dikk ba nga xam ne dañ nga am yowmal xiyaam kenn du taxaw fenn ci barkeb jumaa ji